salaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 nu ñu baaxoo di ko defee ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h euh, tey ñu am mbégte di àndaat ak yéen ci seen émission SOS santé ñu ci dalal tey ki nga xam ne moom mooy euh, Dame Ndiaye moom nag euh, mu ngi nekk njiital Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale bu ngeen ko déggee nekk ab kuréel boo xam ne dafa ëmb ay ndaw yoo xam ne dañuy yëngu ngir li nga xam ne moom mooy wérgu yaram yaay ak doom waaye tamit lii di wàll wàllub arnef dañuy may rek euh, suñu invité daam mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi. asalaamaaleykum euh, euh, auditeurs ak auditrice su réew mi FM ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo scotché wu ci. rajo bi di ñu déglu ci waxtaan bi nga xamante ne nii fas yéene nañ fas yéene nañ ko amal ci li nga xamante ne nii mooy wàllum santé de la reproduction ak wàllum planification familiale mm-hmm. alors alliance nationale des jeunes dafa nekk benn benn réseau boo xamante ne nii ay jeunes ñoom ñoo ko taxawal en 2015. Mm. et ci même année boobu la ñu am reconnaissance juridique mooy si la ñu état jox ay lijaa ay kayit ya nga xamante ne nii mooy firndeel que ne ñun war nañu mën a def liggéey boobu. Mm. et que depuis lors ñu ngi dérouler ay programme ak ay projet un peu partout ci ci Sénégal. Mm-hmm. Euh, euh, jiite alliance bi réseau bi euh, tey ji lan moo la motiver yow en tant que jeune pour nga investir sa temps ak sa xalaat ci li nga xam ne moom mooy wàllu santé de la reproduction ak PF ak yu demee noonu. xam nga xam nga mën nag dama am benn sens mooy depuis mille 2008 dama bokkoon ci benn kuréel bu ñuy wax mouvement d'action des jeunes de l'association sénégalaise pour le bien-être familial mooy mm-hmm. ASBEF. Mm-hmm. ASBEF en 2008 dañu lancé woon benn recrutement di ut ay ndaw ya nga xamante ne nii dañ leen war a former pour ñu nekk ay relais dem ci koñ yi dem ci gox-goxaan yi di waxtaan ak seeni moroomu ndaw. Mm-hmm. alors ci laa ci duggee année boobu noonu après bi ma demee ba ci kanam en 2015 ma gis ne kat jot na tey ji expérience bi nga xamante ne nii jot naa ko am ci réseau boobu ma nekkoon ak ASBEF ma jéem. ak samay xarit ñu taxawal benn kuréel ba nga xamante ne ni dafay regrouper ay ndaw yoo xamante ni ñoom ñoo am même objectif moom mooy naka la ñuy mën a def bala ñu améliorer li nga xamante ne ni moom mooy wér-gu-yaramu ndaw ñi si lañ mettre réseau boobu noonu biñ koy taxawal metti woon na parce que euh, ne serait resque pour amoon reconnaissance juridique bi il fallait en tant que association de jeunes nga remplir yenn critères yi. Mhm. mooy nga defar ay statut règlement intérieur loolu yëpp pour nga déposer ko pour mën a ministère yi man la jox autorisation. Mhm. yàlla bi mu sottilee loolu nag ñu am benn partenaire bu nangu accepté ñu. Mhm. jox ñu benn financement pour ñu dérouler benn programme boo xamante ne ni toujours dafay accès wu ci ndaw ñi mais li ko taxoon a jóg mooy ñu yee ndaw ñi xamal leen jafe-jafe yi nga xamante ne ni moo am. ci feebar yi nga xamante ni souvent ñoom da leen di dal te du ñu am foo xamante ne ni fa lañ ko mën a waxtaanee. Mm-hmm. loolu moo tax depuis lors ñu ngi si euh, ba tey jii nii ñu ngi continuer di def même liggéey bi parce que tout simplement dafa nekk benn question boo xamante ne ni euh, problématique de santé publique la te jàpp nañ ne ndaw ñi kat ñoom ils plus à l'aise bu dee kii ñëw di wax ak ñoom ndaw la comme ñoom. Mm-hmm. loolu moo tax ñun ñu développer l'approche bi ñuy wax éducation par les pairs moom mooy tey jii. dootuñu jël benn mag muy dem di sensibiliser ndaw ñi parce que mën na am benn blocage. Mhm. bu ay kersa euh, rusangeeg yooyu. absolument mën naa am ay kersa léegi bi ñu gisee ne kat approche boobu moom mooy approche bi nga xamante ne ni moom la ñu war a utiliser bu dee dañu bëgg a yee nit ñi parce que comme ni ma koy waxee ndaw aussi dafay am ay problème te problème yi muy am surtout problème de sexualité amuñu habitude di ko waxtaanee suñu famille yi mm-hmm. moom dafay nekk plus à l'aise bu gisee moroomu ndawam ba nga xamante ne ni xaw na ko ci ëpp information tuuti de ce boo ñëwee di toog ak ñoom ci la ñuy gën a am ouverture pour wax la ñoom yan problème la ñuy dund. par exemple da ngay dem ci école wala nga dem ci quartier xale yu jigéen yi ne la par exemple bu ñuy gis suñu règle yi. parfois dafay metti du ñu xam fan la ñu mën a dem pour am serviette hygiénique yi. serviette hygiénique yi naka lañ ko war a utiliser ak mesure d'hygiène yi nga xamante ne ni yëpp dafay accompagner période boobu noonu nga xam ne bu fa ndaw bi tolloo day gis ay règle ñu mën ko yee mën ko wax ne ko lii. bu la dalee comportement yi nga war a am lii bu la dalee da nga war a moytu lii moytu lële moytu lii donc je pense que loolu noonu liggéey la ba nga xamante ne nii ñun ñu ngi koy def ak aussi nekk ci sensibilisation bi nga xamante ni mooy wàllum VIH. bu ngeen suivre suivre actualité yi fan yi passé gis nañu Safiatou Thiam mi nga xamante ne nii moo jiite conseil national CNLS mhm. conseil national de lutte contre le VIH muy wax ne feebar bi dafa am benn pourcentage ba nga xamante ni nii léegi indicateurs yi génn nañ ko te gis nañ ne ci adolescent et jeunes si xale yi la la mhm. nekk léegi loolu nag mu waral ñun ñu développé beneen stratégie ba nga xamante ne nii parce que kat dañu gisoon li ñu jàngatoon mooy affaire VIH yi dañ ko jëloon rek féetale ko affaire mag yi. Mhm. bàyyi woon xale yi te bi ñu demee ba rendre compte que ne kat xale yi ñu ngi jànkontre wu ak jàngoro boobu moo tax tey ñoom ñu ngi. xool yan stratégie la ñu mën a développer pour tous ces jeunes yooyu noonu. Mhm. mu mel ni kon li nga xam ne mooy euh, mission bi ngay expliquer nii lu yaatu la lu bëri la parce que yemu leen kese ci planification familiale ak yu demee noonu yaa ngi wax ci wàllu VIH mais loolu dafa laaj aussi temps bu bëri est-ce que tey du am loo xam ne dina ko gàllankoor ci yow sa peut-être say étude wala sa yeneen activité personnelle yi nga xam ne yaa yaa ngi koy dox. waaw parce que ñun nag euh, déjà comme ni ma ko woon sama sama ci commencement bi mooy. 2008 la ñu duggoon ci mouvement associatif yi. te bi ñuy recruter ñu ngi fekkoon à l'époque mu ngi fekkoon école ñuy jàng. ba léegi nag loolu terewuñu woon continuer suñuy jàng tey jii. parce que travail la boo xamante ne nii c'est pas un travail à temps plein. mais c'est juste un travail à temps partiel. parce que volontariat la woon. volontariat mooy heure yi nga xamante ne nii yow defoo cours les samedis wala les mercredis soirs amoo cours. nga ñëw accorder. benn temps pour nga mën a waxtaan ak say say say moroom ndaw te gis nañ ne depuis bi ñu koy def ba léegi terewuñu et puis yàqaluñu suñu jàng aussi parce que tey jii bu ñu mënee dem ba agsi fi ñu agsi tey si jàng c'est parce que dañu xam naka lañ koy gérer. Mm-hmm. entre être un militant associatif ak aussi les études bi nga xamante ne nii aussi c'est important pour nous parce que nit tamit ndaw balaa ngay mën a jiital dara. Mm-hmm. wala ngay wax ci affaire santé. baax na nga am minimum de de connaissance am minimum de compétence pour boo mën a waxee nit ñi mën ko dégg mën si jëlee xam-xam. est nga def ay étude de santé wala yooyu ndax peut-être intéret bi nga ci am ak et tout cela. bizarrement defuma étude de santé. Mm. mais planification laa def je suis planificateur de formation mais des politiques publiques mm mais dama intéressé wu tout tout ce qui est gestion de projet et mm-hmm. programme mais ci si wàllum santé. Mhm. spécialisé wu ci domaine de santé. Mhm. du ma spécialiste de santé. Mhm. mais technicien laa ci parce que tout simplement programme bi ma jàng euh, ci pàcc boobu noonu la demee loolu moo tax tey jii ma gën ci nekk à l'aise parce que domaine la boo xamante ni depuis bi ma nekkee xale ci laa nekk ci laa nekk di yëngatu. est-ce que tey ci réseau bi par exemple am ngeen ay. antenne un peu partout peut-être ci biir Sénégal bi parce que euh, Sénégal c'est pas seulement dakaar yeneen euh, gox yi aussi ñoom ñooy gën a soxla sax parfois sensibilisation yooyu ndax dakaar fii mën nga ne peut-être internet beeg tous la mais ci biir euh, la à l'intérieur du pays. waaw xam nga nag ñun suñu association yu mel nii limite bi rek mooy souvent du ñu am accompagnement l'État. Mm-hmm. ñun ni ñuy fonctionner mooy. ay projet ak ay programme te souvent partenaires yi ñoom ñoo ñu si accompagner donc ñun stratégie bi ñuy développé pour mën a nekk fépp ci Sénégal mooy tey par exemple bu ñu amee projet ci région bu mel ni Diourbel wala ñu am projet fu mel ni Kolda wala Kédougou dañuy fexe ba foofu ñu recruter fa ay jeunes. Mm-hmm. ñu leen di wax les points focaux. am région bu nekk benn point focal boo xamante ni moom moo ñu fay représenté point focale boobu nag. dafay travailler en étroite collaboration ak association yi nekk ci gox yooyu noonu. moom mooy def planification des activités foofu noonu au niveau de sa région léegi buy dérouler da koy travailler en partenariat ak association yi yi nekk ci gox bi. Mm-hmm. loolu mooy waral tey jii ñun ñuy am représentation yi au niveau de ces de ces régions là. Mm-hmm. mais euh, nekkuñu fépp Sénégal mais région yi nga xamante ne ni ñun suñu association bi am nañ fa ay projet fu mel ni Kolda fu mel ni Kédougou fu mel ni Sédhiou fu mel ni Diourbel fu mel ni Saint-Louis foofu yëpp am nañ fa ay ay ay points. da ngeen ni presse bi di amee ay mhm. la ñuy amee ay points focaux ci ci dëkk yooyu noonu nga xam ne moom moo ñuy représenté foofu mhm. euh, yi ngeen di def parce que yaa ngi koy wax sànq lu ci bëri ci santé de la reproduction planification femme dafa nekk ay yoo xam ne day faral dañ koy faral di considérer comme des sujets tabous fii nga xam ne moom mooy. ci euh, Sénégal euh, tey Dakar peut-être mun na tane tuuti mais boo demee ci yenn régions yi nga xam ne dañuy ancré ci yenn culture yi euh, naka ngeen di def en fait ci ci côté boobu. waaw xam nga xam nga xam nga Sénégal nag dafa nekk benn contexte ba nga xamante ne ni c'est un peu particulier pour waxtaan ci wàllum wér-gu-yaramu ndaw ñi. surtout affaire planification familiale nga xam ne ba léegi dafa am ay postes de résistance. Mm-hmm. moom mooy bu fekkee ne am na ay religieux ya nga xamante ne nii ñoom ils favorable à la planification familiale mais am na ñoo xamante ni nii ba tey jii dañu am résistance. lu ci ëpp sax. ndax dañu am résistance ci wàllum planification familiale maintenant ñun nag euh, suñu projet yi souvent day tenir compte de la réalité socioculturelle du du, du Sénégal. Mm-hmm. mooy du du lu ñu partenaires yi andil rek ñu jël ko. Mm-hmm. mais dañuy xool ñoom liñ ñuy jox. lan moo si adapté wu ak ñun suñuy culture par exemple fii dañu nekk benn société ba nga xam ne dañu am kersa. Mhm. ni ñuy waxee aussi da ngay respecté mag tey sa programme yi boo demee di sensibiliser war nga fexe ba yow doo fa jibal kàddu ba nga xamante ne nii mën naa heurter sensibilité nit mhm. yi. voilà te xam nañu dañu am benn société ba nga xamante ne nii la majorité c'est des c'est des musulmans et que loolu également dañ koy tenir en compte ñun ci suñuy sensibilisation moo tax balaa ñuy dem ci benn dëkk dañuy def li ñuy wax benn analise des déterminants. déterminants socioculturels yi ñu xool dëkk bi naka la ñuy xalaatee naka la ñuy waxee yow boo fa ñëwee indi fa sa programme bu bees nan nga war a mën a def pour adapté wu ak réalité dëkk boobu noonu loolu moo ñuy waral tey jii ñun si suñuy intervention ñuy am satisfaction parce que dañuy maîtriser paramètres yëpp balaa ñuy ñëw di wax ak wax ak askan boobu mhm. noonu. voilà loolu am na solo parce que tey li nga xam ne moom mooy par exemple wàllu ay planification familiale mag ñi buñ koy wax. day déjà nekk problématique ndaw yi ñu koy wax aussi mu nekk problématique parce que dañ naan ah yéen de tolloogu leen ci lii ak lii da ngeen di prôné débauche ak entre parenthèse ak yu demee noonu wala da ngeen bëgg a yàq xale ak yooyu tey aussi loolu di nekk ab problématique boo xam ne nu ngeen di def aussi pour pour affronter ko. xam nga ñun nag suñu suñu ligne directrice. Mm-hmm. ñun moom mooy naka la ñu mën a fexee am benn société boo xam ne dañuy am ay ndaw yu responsable. Mm-hmm. ndaw yu responsable fi muy commencé. mooy ñu xamal leen ba pare. Mm-hmm. jox leen la bonne information tey par exemple ñun suñu message de sensibilisation yi si liñ koy njëkk a accès ak accès mooy pratiquement majoritairement nous sommes des musulmans. Mm-hmm. te la religion daf ñuy imposer ñun ñu absteniru ba ba ñuy am jëkkër. Mm-hmm. wala ba ba ñuy am jabar. loolu mooy message clé bi nga xamante ne ni moom la ñuy jiital suñu suñu suñu suñu communication yi. mais également aussi dañuy nangu que ne ni mu amee ñi nga xamante ne nii dañuy téye seen bopp ba am jëkkër wala ba am jabar noonu la amee ñu nga xamante ne nii commencé nañu seen vie sexuelle. Mm-hmm. et que ñooñu également aussi ay jeunes la yoo xamante ne nii waruñu leen laisser pour contre dañ leen war a jëlaale en compte si suñuy stratégie d'intervention yi mooy ñoon tamit ñu ne leen comme yéen commencé ngeen am des activités sexuelles li leen war aussi mooy ngeen am une sexualité responsable. Mm-hmm. mooy tey par exemple. am na ay méthodes contraceptives ya nga xamante ne ni mu ngi fi bu ko ndaw bi utiliser mën na ko muccal ci jàngoroy sidaa yi. Mm. mën na ko muccal ci grossesse précoce yi mën na ko muccal ci grossesse non désirée yi parce que loolu également aussi gis nañ ne que euh, mooy indi li ñuy wax mortalité maternelle yi ndaw bi day ëmb te. amul âge am permettre ko moom mu mën a supporter grossesse te méthode de contraception yi je pense que loolu mooy utilité bi loolu mooy njariñ bi mais ñun li ci gën a am solo mooy ñu xamal nit ki jox ko la bonne information ne ko kat lii moo baax boo tolloo ci situation yi nii nga war a def bu dee nag yow nekk nga ka nga xamante ne nii tu responsable yaa ngi xalaat mën nga dund benn dund ma nga xamante ni da ngay épanouir tout en restant ancré à nos valeurs socio-culturelles aussi. Mhm. tey aussi euh, si yenn gox yi peut-être bu ngeen fa demee euh, yéen da nga fa am ay points focaux ak yooyu c'est important mais aussi peut-être ci nga ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, coutu chef coutumier ak chef religieux yu nekk ci gox yi parce que ñun fi en général suñu gox-goxaat dafay am ñoo xam ne ñoom ñooy nekk leader d'opinion yi tey ñooñu est-ce que du ngeen am problème parfois. wala nga peut-être nga nettali ñu ci benn euh, anecdote boo xam ne am ngeen ko ci ngeen dem peut-être on vous a mal accueilli wala yu demee noonu. waaw par exemple boo gisee l'autre jour maa ngi koy rappelé ah. problème bi affaire planification familiale amoon au Sénégal bi ñu koy soog a tàmbali parce que dañu rate woon la communication nit ñi kat li ñu doon wax moom mooy. la limitation des naissances mooy jur gi ñu fexe di ko limiter ñu bañ a bàyyi nit ñi nekk di jimute or que planification familiale nekkul woon loolu je me rappelle docteur euh, Massarigne bi mu ñu koy bi mu ñuy raconter anecdote boobu mun nañu nit ñi dañu woon fu mel ni Touba nga xamante ne nii dafa am ay réalité mm-hmm. boo fa ñëwee nga xamante ne ni foofu religion bi dafa am doole nga ñëw di fa wax waxu limitation de des message doo fa am retour bu favorable alors bi mu demee moom il fal yi moom en tant que médecin médecin chef de région mu delluwaat expliquer expliquer maara bi sëriñ bi ne ko carrément li ñu tax ak jóg kat du limiter naissance comme ni ko nit ñi di waxee mais naka la ñuy fexee ba ba espace le naissances maanaam ñuy may ku jigéen ki bu amee doom ñu may ko mu mën a récupérer yaramam récupérer waat santéem récupérer waat formam balaa muy xalaataat amaat beneen ëmb loolu kat gis nañ ne bu ko defee dafay réduire li ñuy wax décès décès décès maternel yi. Mm. mooy nit dootul dootul dootul dootul dootul dootul wasin ba pare di fa jaaree ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk bakkanam. Mm. donc loolu moo tax ñu ne communication yi dafa baax surtout booy dem ci yenn milieu yi nga xamante ne nii dafa am ay réalité loolu moo tax tey coalition bi nga xamante ne nii moom moo regroupé organisation yiy liggéey ci wàllum planification familiale yépp boo duggee ci biir da nga fay fekk ay religieux religieux yooyu noonu bu ñu amee ay campagne de communication wala ay programme de sensibilisation ñoom ñooy dem wax ak cible religieux yi. Mm. ñoom ñooy dem ci religieux yi wax ak ñoom parce que ñoom kat peut-être dinañ am ay arguments yoo xamante ne nii surtout des arguments religieux. Mm-hmm. ñun duñ ko am en tant que ndaw. donc loolu moo tax ñoom ñooy gérer volet boobu noonu ak euh, ak religieux yi. beneen expérience bi ñu si am parce que ñun au-delà de la planification familiale ñu ngi liggéey ci wàllum maladie tropicale négligée mooy jàngoro yi nga xamante ne dañ leen xaw a ñàkkal tuuti fayda. Mm. bi ñu demee récemment à à Kédougou dañu jaare ci chef religieux bi parce que on avait du mal à trouver une personne ba nga xamante ne mënoon nañu organiser l'activité bi parce que comprendre ñu woon bi ñu woowee le chef religieux expliquer ko ñun li ñu tax a jóg. moom kat dafa ne man maay woo waxtaan bi te sama biir kër laa fay woote parce que li ngeen di wax nii jàngoro yi ngeen war a ñëw waxtaan fii sensibiliser si nit ñi dafa nekk loo xamante ne ni sonal na suñu doom yi sonal na suñu mag yi nga xam ne ñoo nekk ñoo nekk ñoo nekk bi fii si biir Kédougou mm. loolu rek di waral ne di di wane ne dafay baax booy liggéey ci dara ngay wax lu leer surtout communication ci wàllum santé santé dafa sensible lu ci nit di wax dafa war a nekk loo xamante ne ni ay information yu yu wër la te aussi mu nekk la personne adéquate pour mën a mën a mën a joxe ces informations là. Mm-hmm. loolu am na solo euh, li nga xam ne moom mooy wàll woowu sax ak côté ñi nekk ci diine beeg yu demee noonu gis nañ ne de plus en plus euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy chef religieux yi ñu ngi ci vraiment di euh, def liggéey bu am solo parce que ñoom de plus en plus ñu ngi ciy impliqué wu. ñu ngi ciy impliqué bu baax d'ailleurs yaa ngi koy tudd sànq cadre bi nga xam ne moom mooy religieux yi te loolu ay at. ci ginnaaw amuloon donc le plus en plus ñoon ñu ngi joxe impulsion wu euh, se mettre en avant ci côté boobu euh, mu mel ni kon am na avancée yu mag yoo xam ne am na ci côté surtout wàllub arnef bi. Euh, je pense que ñoom seen seen seen seen seen liggéey ci wàllum planification familiale vraiment liggéey la boo xamante ne di bu am solo la boo xamante ne ni même au niveau régional au-delà du Sénégal yeneen pays dañuy ñëw. di jàngat naka la suñu religieux yi def ba ñoom tey jii kat ñu mën a porté ces questions là. Mm. parce que tout simplement très tôt l'État a compris que il fallait développer des stratégies yoo xamante ne ni ce serait porté par ñi nga xamante ni ñoom ñooy religieux parce que comme ni ma ko waxoon ñoom ñooy nekk ci jumaa yi ñoom ñooy nekk ci jàkka yi ñoom ñooy tudd ñoom ñooy maye jabar et ñooñu dañu am benn benn. benn benn benn benn kanaal canaux dañu am ay canaux yoo nga xamante nii mën nañ fa jàllale ay information ñëpp dégg si. Mhm. parce que Sénégal fii le leader religieux wax ñu jëf moo gën a yomb ko homme politique wax ñu jëf. Mhm. loolu moo tax kat ñu ne bu ñu jaaree si ñoom xëy na tey jii liggéey bi dina gën a mën a yomb si ñun loolu moo tax depuis bu ñu ko defee ba léegi. gis nañ ne ñu ngi ciy am quand même des avancées assez significatives surtout par rapport ak. Euh, liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def te le seul objectif mooy ñu mën a réduire les décès évitables. Mm-hmm. parce que gis nañ ne nit ñi xale yu jigéen yi ñu ngi ñu ngi ñàkk seen bakken bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy wasin xale yi tamit ñu ngi juddu di delluwaat loolu yëpp ñu gis ne tey bu ñu rendre l'accès à la planification familiale universelle. je pense que loolu dinañ ko mën a réduire efficacement. bu weesoo loolu sa infanticide yi tey rek am na ñaari cas yu ci euh, journaux yi relais surtout ak chambre criminelle bi commencé et tout donc mu mel ni chaque fois ñu dégg cas yu atroce te yooyu yëpp peut ay grossesse non désirée ñoom ñoo koy waral ak yu demee noonu lu ñu mënoon prévoir la prévenir euh, balaa musiba boobu di am. waaw waaw absolument parce que loolu rek li muy li muy firndeel mooy information bi ba léegi fu mu war a àgg yëpp àggagu fa. Mhm. parce que tey je pense que nit kiy dem bay toll foo xamante ne nii day wasin doom ba pare reyaat ko je pense que dafa am ay information yoo xamante ne nii amoon na amu ko woon. ma mhm. jàpp ne bu ko amoon xëy na foofu yoon foofu noonu yëpp du fa agsi par exemple tey y a des produits contraceptifs ya nga xamante ne nii par exemple mën na tax même bu dee. da nga nekk ci buumu sëy wala nga bañ a nekk ci ci buumu sëy man nga éviter di tomber enceinte. Mm-hmm. mooy produit planification familiale yi nga xamante ni moom la ñuy wax. te ñu ñu yaakaar ne ñun tey jii suñu rôle moom mooy ñu renforcer davantage la communication renforcer davantage la sensibilisation parce que saa yoo xëyee di dégg ne euh, infanticide am na di dégg ne benn. ku jigéen ñàkk na bakkanam parce que dafa nekkoon ci ci ci maternité ba di wasin dafay nekk loo xamante ni yow en tant que acteur ci question bi da ngay am lu la metti am le santiment que ne sa liggéey des na lu baree baree baree mm. baree parce que déjà ñun dañuy jàpp ne ndaw bu ci nekk tu as droit à l'information et la santé aussi droit la pour pour pour, pour les citoyens. Mm. donc ñu jàpp ne waruñu bàyyi dara war nañu sensibiliser war a yokk communication bi. war aussi faciliter nit ñi ñoo am accès ci ci yi nga xamante ne ñoom ñooy faj nit ñi. Mm. may fàttali rek mbokk yi tey ñu ngi dalal ki nga xam ne moom mooy daam Ndiaye di njiital alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale tey jii ngeen nekk frange bu importante boo xam ne di ngeen mën a laal ndaw yi te ñun moom dañ nekk ci dëkk boo xam ne ndaw yee fi ëpp donc euh, kuy def stratégie wala kuy def loo xam ne dafay jëmale wàllu santé kanam war na leen ci boole par exemple autorité sanitaire yi. waaw ñun nag fii euh, au Sénégal am nañu sens vraiment ñu am ay autorités yi nga xamante ni nii comprendre que ne nañu pour nga mën a liggéey ak ndaw yi il faut nga leen di boole ci ci ci li ngay def. Mm-hmm. bañ leen di considérer comme ay cible mais di leen di considérer comme comme comme ay partenaire parce que euh, dañu dem ba gis ne que ndaw yi. dañu am seen façon de parler. am seen façon de faire xëy na peut-être bu dee yow da ngay élaborer benn politique pour ñoom nga jël un expert consultant adulte mën na bañ a comprendre réalité yi nga xamante ni moom la ndaw ñi di di di dundoo mais boo jëlee ay ndaw yu mel ni ñoom nekk ci question yooyu ñoom bu ñu ñëwee dañuy am benn valeur ajoutée seen valeur ajoutée mooy ndaw lañu tollu. ci jamono boobu di dund également aussi li nga xamante ne nii moom la ndaw ñi di dund. ñooñu dañuy gën a euh, comprendre facilement la question loolu moo tax tey ñun ñu am ce partenariat vraiment dynamique et intelligent entre nous et les autorités et les autorités religieuses. Mm-hmm. et je pense li koy marqué mooy tey jii lépp lu ministère yi di def lépp lu autorités yi di def dañuy woo ndaw ñi. Mm. dañuy woo ndaw ñi laaj leen seen xalaat. ndaw ñu wax seen xalaat ba pare ministère yi jël loolu intégré ko ci seen ci seen politique. donc bokk nekk ngeen partie prenante ci euh, yenn politique yi ñuy laal ci wàllu santé. absolument même bu ñuy commencer réfléchir par exemple dans le cadre du VIH tey ji comme ni ma ko waxee ak indicateur ak données yi nga xamante ne nii. récemment mhm. publié nañ ko mu tiital ñu bari. Mhm. le CNLS a compris que il faut mu développer benn stratégie boo xamante ne nii. ñu ngi koy tuddee la stratégie all in pour apporter des réponses par rapport à cette problématique là parce que li ko waral mooy ñoom xëy na peut-être dañ daan laisser en rade cette cible là mm. jàpp nañu ne que amaguñu ay vie sexuelle parce que ay ndaw lañu mm. que ñoom jaruñu adresser des des des politiques bi ñu comprendre loolu nag ñu woowaat association des jeunes yëpp mm. ñu ñëw autour d'une table ñu nekk di réfléchir pour développer benn stratégie boo xamante ne nii pour ndaw ñi lañ ñu koy wax la stratégie all in boo xamante ne nii association de jeunes yëpp. Mm-hmm. ñu ay partie prenante lañu ci ci ci dynamique boobu noonu. Mm-hmm. donc loolu rek benn firndeel la buy wane ne que autorités yi ils ont compris que. pour ñu liggéeyal ndaw ñi il faut ñu jël ndaw yi également di leen mettre au devant de la scène. Mm-hmm. te bu weesoo autorités yi sax autorités religieuses yi gis nañ ne de plus en plus ñu ngi leen di impliqué parce que euh, keroog rek ci ndaje bi amoon ak waa CRDS dañ leen woo invité leen ci nga def. Euh, intervention boo xam ne aussi séduire na ñi fa ne woon rawatina délégation guinéenne ba nga xam ne comme ni nga ko waxee sànq dañoo jóge ba beneen réew ñëw pour mën a imprégné wu échanger ak Sénégal ci avancé yi nga xam ne am nañu ko. waaw je pense que loolu benn benn benn ndaje la bu bu amoon solo di di profiter sax di remercier waa CRDS yi nga xamante ni ñoom ñoo ma boole woon ci waxtaan bi parce que ñu ngi daje woon ci benn rencontre ak Cotonou. Mm-hmm. ñu koy wax la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou partenariat de Ouagadougou benn mécanisme la boo xamante ni dafay daje religieux yi dafay mm-hmm. dajale religieux yi di dajale ndaw ñi di dajale partenaires yi pour ñuy ñëw waxtaan ci affaire planification familiale. Mm-hmm. alors bi ñu ñëwee également gis nañ ne que carrément il faut que ñu développer benn partenariat entre les jeunes et les religieux parce que dañu gisoon ne dafa amoon benn distance entre ñoom est-ce que jeunes yi war nañu mën a waxtaan ci wàllum planification familiale est-ce que am nañ des arguments religieux est-ce que religieux yi mën nañu travailler en partenariat wala en collaboration avec les religieux expérimenté wuñ ko. Mm. donc loolu moo waraloon tey ji ñu ñu invité woon ma en tant que ndaw pour ma mën a wax ak ñoom ci yan stratégie la ñu mën a mettre ensemble mu nekk ay stratégie yi nga xam dafa réussir au Sénégal ak un peu dans la sous-région ñu xool naka lañ ko mën a domestiquer fii nii si suñu pays et je pense que loolu lu lu am solo la parce que comme ni ma ko waxee également le Sénégal c'est un pays majoritairement musulman yooyu. ay don la yoo xamante nii il faut ñu koy tenir en compte ci lépp lu ñuy def. Mhm. te gis naa ne sax euh, même keroog ci ndaje bi ñoom dañoo invité woon benn pasteur benn euh, euh, prêtre daal boo xam ne ñëwoon na pour vraiment moom pour wane aussi beneen pàcc bi nga xam ne mu ngi ci réew mi moom mooy ñu nga xam ne ñoom ñooy sunu mbokku chrétien yi. absolument mhm. loolu rek day firndeel ne que fii ci dëkk bi surtout même je dirais même en Afrique francophone noo fi def dara. sans pour autant nga impliquer les les les les les religieux. mooy que que ce que ce soit du côté de l'église wala la religion musulmane il faut forcément les impliquer ci lépp li nga xamante ne dañ koy def parce que rappelé naa ko sànq tey religieux bi wax ñu jëf moo gën a yomb homme politique bi wax ñu jëf. Mm. moo tax yow boo amee set compréhension rek lépp looy def da nga leen ci boole moo tax coalition yi suñu coalition yi chaque jour dañuy jël association de religieux ñu boole leen ci biir. que ce soit du côté de l'église wala du côté de de de la religion musulmane ñoom ñëpp elles sont partie prenante de de ces dynamiques la mm. donc loolu loolu dafay firndeel rek ne que ñun en tant que ndaw waruñu rek ne am nañu xam-xam am nañu mën woon am nañ accompagnement rek dañu war a dem di wax euh, la nga xamante ne nii par exemple duñ ko teg. ci benn argument religieux ba nga xamante ne nii c'est c'est c'est avéré. Mm. Euh, tey jii partenaires yi ñu gis ne de plus en plus vraiment affaire euh, PF beeg yooyu intéressé na leen jaral na leen ñuy investir bu baax a baax pour que vraiment euh, planification familiale bi gën a am maanaam taxawaay ci askan wi ñu koy gën a utiliser ak yooyu. tey aussi am na pont parce que nit ñi tam mënoo leen tere wax y a des ak yooyu noonu parce que gis nañ ne saa fi vaccin ñëwee sax ñu ne woy c'est parce que dañoo bëgg euh, vraiment nit ñi bañati am ay doom ak yu demee noonu euh, partenaires yi de plus en plus ñuy dugal seen loxo ci planification familial gis nañ ku mel ni Emmanuel Macron waxoon na fi wàllub euh, suñu démographie ak yooyu noonu donc tey yooyu yëpp parfois mu mën a indi ay xel ñaar daal ci mbir mi voilà. je pense que wax nga benn benn benn point bu am solo. Mm-hmm. mooy l'intérêt des partenaires sur sur la question. Mm-hmm. parce que euh, man souvent dama koy wax bu ñu dañu bëgg a am benn capital humain de qualité. Mm-hmm. il faut ñu investir sur la santé il faut ñu investir sur l'éducation pour faciliter jeunes yi ñu am accès à l'emploi parce que naka la ñuy investir sur un capital humain de qualité. on est à l'ère du dividende démographique. te mm. dividende démographique mënoo capturer opportunité yi mu lay offrir sans pour autant nga def investissement boobu mm. noonu. te pilier fondamental bi c'est sur la santé ndaw ni ndaw ñi naka lañ leen war a mën a garantir ñu dund am une vie saine ñu mën a jàng. duñu duñu duñu am jàngoro yi nga xamante ne nii feebaru sëy yi ñoom ñoo koy joxe ñu bañ a am grossesse précoce ñu bañ a am grossesse non désirée ñu bañ leen a joxe en mariage précoce. Mm. yooyu yëpp je pense dafa nekk benn ay éléments yi nga xamante ne nii il faut que ñun ñu mën ci waxtaan am ay partenaires yi nga xamante ni def ñuy accompagner te gis nañ ne que tey jii la santé à travers la planification familiale. mën na tax ñu am un capital humain de qualité mooy naka lañuy ñuy la fécondité maîtrise fécondité boobu moom mooy tey jii ñu fexe ba nit ñi ñuy bañ a am des grossesses rapprochées grossesse rapprochée parce que gis nañu dégâts yi muy def ci wàllu wérgu yaramu wérgu mu jigéen ñi. Mm. baaxul ci wérgu yaramu jigéen ñi baaxul aussi ci wérgu mu seen seen doom yi loolu moo tax ñu ne tey jii ak les partenaires il faut ñu waxtaan parce que tey jii l'indice de fécondité au Sénégal. Mm. se tourne autour de cinq enfants par par femme. Mm -hmm. et cinq enfants par femme bu ñu xoolee également Sénégal mu nekk benn pays ba nga xamante ni c'est un muy gën a metti muy gën a ndaw yi amuñu liggéey ndaw yi amuñu gën amuñu liggéey ñuy wax problème enfant de la rue. nit ki day jur ba pare sànni. Mm-hmm. wala mu jur ba pare rey. mu nekk ay problèmes ya nga xamante ni mënul ànd ak développement mënul ànd ak émergence. Mm-hmm. je pense que loolu tey ji ay ay ay. ay éléments de justification la yoo xamante ne nii ñun rek mën nañ ko mettre en avant pour ñu expliquer nit ñi euh, gëneel yi nga xamante ne nii am na ci wàllu immigration clandestine bi aussi. absolument parce que voilà mm. parce que état mënul mënul mënul jox ñëpp liggéey. Mm. dëkk bi metti na il faut que nit ñi aussi xool yeneen moyens yi nga xamante ne dinañ ko mën a def pour réussir seen vie. et je pense que loolu yëpp. dafay andi ci wàllum dividende démographique bi dividende démographique bi il faut que tey jii ñu xam également ñun en tant que jeune en tant que l'avenir de de la nation ñu xool yan yan yan stratégie la ñu war a mettre mën a mettre en place pour que ñu permettre suñu moromu ndaw yi nga xamante ne nii amuñu la chance d'aller à l'école amuñu la chance d'avoir un travail mais ci li nga xamante ni ñun mën lañ leen see dimbali mooy ñu dimbali leen mooy informer leen jox leen la bonne information état assurer leen aussi l' au service services sociaux de base je pense loolu bu ñu ko defee dinañ mën a am benn capital humain de de qualité. ci wàllu PF bi euh, accessibilité daf ci am solo accès pour que tey koo xam ne bëgg nga peut-être jot ci yenn méthode contraceptive walla ay conseils sax euh, nga mun cee jot ci loo xam ne dafay facile te loolu dafa Euh, proximité am diggante ñi nga xam ne ñooy nit ñi ak produit yi ñu soxla parce que parfois nit ki mën na a dem ba pharmacie ak yooyu pour dem jëli telle ou telle chose euh, rusa dem peut-être hôpital pour xam nga bañ ñu juger kook yu demee noonu moo tax ay centre ado genre yu noonu am am solo tamit. Mm-hmm. tey jii euh, lan ngeen di dox comme ay jéego pour accessibilité am ci ci wàllu woowu. wa xam nga ñun tey jii nag dañu nekk euh, ay acteurs de de la société civile mm-hmm. suñu rôle mooy ñuy waxtaan ak état bi mm-hmm. pour mu respecter ses engagements mais aussi di ko accompagner à travers la mise en œuvre de ses politiques de santé mm-hmm. tey état dans ses politiques dafa nekk dans une dynamique d'implanter ay centre conseil ado wala ñu koy wax des espaces endogènes ci centre de santé yi wala poste de santé yi alors ñu jàpp ne loolu tey jii bu effectifé dans toutes les régions dans toutes les contrées du pays dina nekk benn réponse par rapport à la santé des adolescents et jeunes mooy ñu fexe ci poste de santé bu ñu nekk wala ci centre de santé bu ci nekk ñu am fa benn espace dédié aux jeunes parce que comme ni ma koy waxee jeunes yi dañu am ay besoins spécifiques yi nga xam ne bokkul ak besoins yi nga xamante ne nii moom la mag ñi am. par exemple da ngay gis sa règle mënoo ko laaj sa papa mënoo ko laaj sa yaay. ñu ne la kat boo demee ci espace jeune bi am na fa benn jeune buñ fa formé bu fay nekk man la jox ay information ci wàllu boobu. Mm. am na fa benn sage-femme jeune bu fa nekk boo ñëwee moom it mën na la dalal. waxtaan ak yow ne la kat boo gisee say règle comportement bi nga war a am. Mm. ak mesure d'hygiène yi nga nga nga nga war a jël. parce ñun fii xam nañ suñu hôpitaux nu ñu mel. voilà boo demee taseeg benn mag. boo ko nee lii laa soxla mun xool bi mu lay xool rek da ngay buñu daw. voilà parce que ñoom dañu jàpp ne fii nii surtout sax si jigéen ñi. Mm-hmm. buñ la gisee yow ci jigéen rek ngay dugg ci hôpital wala ngay dugg ci centre de santé wala ci poste de santé rek. dañ lay commencé di la di la di la di la di la discriminer. Mhm. di la stigmatiser non bu weesoo la sax di nga dem sa biir di metti wala genre nga dem ñu naan la kat nga mujj gis say règle yaakaar ne da nga ëmb. voilà voilà loolu yëpp muy waral kële mooy muy wane rek mooy société bi ñu nekk. nga mhm. xamante ne nii souvent dañu am kersa ci wax ci yenn yi te xamuñu ne que nit ki sax mën na dem ci centre de santé yi wala ci poste de santé yi san pour autant sax am jàngoro bu ko metti mhm. mais dégg na dara rek demander laaj information yi parce que foofu tamit centre d'accueil la ak d'information. ci culture boobu moo fi des. voilà mm. par exemple tey boo demee ci yenn espage jeunes yi am nañ documentation. Mm. dañuy am benn bibliothèque yow boo amee ay recherche yooyu def dans le cadre du VIH dans le cadre du paludisme boo demee jeunes ya fay nekk dañ leen di former pour yow kat boo ñëwee boo amee question yooyu ngay laaj ñoom ñu jox la ci ay tontu. Mm. mais tamit. bu dee da nga am feebar yi nga xamante ne ni ñoom war nañ la mën a faciliter faju bi tamit centre conseil ad yooyu noonu seen rôle la ñu ñu ñu joxe information yi ak ndaw yi parce que loolu moo leen tax a jóg. Mm. mais gis nañ ne état bi am na volonté politique mais mois yi ñoom ñooy ñoom ñooy poser poser problème loolu moo tax ñun ñi nga xamante ne ni ay acteur de la société civile la ñu ne dañuy dem wax ak collectivité territoriale yi. Mm. ne leen yéen tamit. comme santé léegi dañu leen ko jox comme compétence transférée ngeen nekk aussi des commune de plein exercice. Mm-hmm. baax na tamit seen gafaka gi ngeen yëkkati si ay pàcc jox ko ci wàllum wàllum wér yaram yi. Mm-hmm. parce que seen rôle la tamit seeni population yéen la ñu jox seen baat pour ngeen toogal leen fii baax na aussi xam nañ ne am na ay effort yu ngeen di def mais gën leen ko yokk parce que sante moom dafa nekk loo xamante ne nii euh, nit waru ko caaxaane mm-hmm. te lépp luñ si investir rek doyul. te collectivité locale yi ngay am wax sax noonu dafa dafa am solo parce que loolu déjà mooy wane proximité proximité. Euh, tey jii doo dem ci euh, ministère de la santé nga naan da fay jooytu wala di fa am kii donc li la gën a jege moom ngay dem jooytu ji te je pense que mairie et collectivité territoriale ñoom ñoo war a def liggéey bu am solo ci loolu yaa ngi koy wax sànq keroog yaa ngi ko doon expliquer que de arrivé ngeen sax ba am ci yenn yenn résultat yi. absolument tey collectivités yi je pense que am na ay collectivités ya nga xamante ne nii vraiment dañ leen di gàcce ngaalaamaal par exemple bu ñu gisee collectivité bu mel ni Pikine mhm. euh, ci département Pikine ak le maire du jara mhm. Diarra boobu kat tey champion la ci wàllum planification familiale parce que moom mooy maire bi njëkk a jël engagement ne kat moom au-delà de la ligne budgétaire bi nga xamante ne nii ci commune am mu ngi koy jox wàllum santé mais dafay alloué waat beneen montant boo nga xamante ne ni uniquement pour l'achat de produits contraceptifs. Mm-hmm. moom mooy produit yi nga xamante ne ni moom la nit ñi utiliser si wàllum planification familiale. tey moom exemple la ci te am na yeneen collectivité ya nga xamante nii gis nañu modèle boobu ñu commencé ñoom it di ko dupliquer ci seen ci seen communes yi je pense niñ ko defee à defee ko ak Guédiawaye noonu lañ nekkee aussi di ko def ci yeneen région yi nga xamante ne ni par exemple région de Saint-Louis. boo demee région de Thiès mais élus yi jël engagement ne bu débat d'orientation budgétaire yi jotee ñoom dañuy porter plaidoyer bi pour que léegi kat seeni maires yi di accompagner CEDEPS yi parce que fa ndaw ñi di daje. di accompagner CCA yi parce que fa la ndaw ñi di daje. Mm-hmm. Euh, champion boobu di concept quand même bu intéressant donc ça veut dire que lu ngeen euh, impulsé la pour. Euh, xam nañ ne fii moom ñu yëngu ci wàllu politique ak yooyu entre guillemets dañuy bëgg a gis leen ma donc tour champion boobu noonu c'est bien pensé parce que day am benn peut-être auteur bu mu leen di jox donc dañuy bëgg ku nekk day daal di bëgg a bëgg a def euh, idée boobu fan fan la jógee. xam nga idée boobu noonu ñu ngi ko développé ak euh, organisation yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci coalition. ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum planification familiale nga xam ne réseau Siggil Jigéen. Mm. moom moo porté moom moo porté le lead. tey xam nga daf ci am ay maires ya nga xamante ne nii vraiment ils sont sensibles aux de santé. Mm. parce que xam nañ ne que suñu communes yi gannaaw suñu état moo amul yenn doole yi waxatuma la ak suñu communes yi te ñoom ñoom ñoo gën a jege seeni askan. souvent dañ leen di solicité ci ay ordonnances souvent dañ leen di solicité ci ay évacuations souvent dañ leen di solicité ci ay opérations. Mm. ñu gis ne kat ay question la ya nga xamante ne ñoom lépp luñ ci investir doyul mais tey ñun li ñu jàpp mooy mairie yi ñu ngi def ay ay jéego gaar mm. mais war nañ ko mën a gën a yokk parce que li ma ko waxee sànq. santé léegi ñoom ñoo koy gérer compétence la bu leen état du Sénégal mm. jox te c'est des communes de plein exercice yi nga xamante ne nii am nañu les moyens même bu dee bariwul mais ñu accompagner ñu soutenir l'effort de l'état du Sénégal parce que état kese mënul def lépp mais il faut que mairie yi jàppale ci ak entreprise yi nga xamante ne ni nekk nañu ci seen gox-goxaat yi mm. à travers la RSE ñoom tamit ñu mën contribuer ci ci ci financement santé bi. Mhm. Euh, parce que loolu c'est important trouver peut-être d'autres euh, sources de financement comme li nga wax léegi yenn entreprises yi nga xam ne dañoo am doole donc euh, ñoom tamit mën a dugal seen loxo ci ci mbir mi. absolument waa je pense que la responsabilité sociétale des entreprises. ñu ngi commencer di ko di ko expérimenter ah parce que di nga dem ci yenn gox ya nga xamante ne nii. Euh, entreprise ya fa nekk tabaxal na leen ay poste de santé wala ñu may leen ambulance wala ñu tabaxal leen ay centre de santé wala ñu équiper leen seen mm. seen seen seen seen bërëb yi nga xamante ne ni foofu la ñu nekk di fajoo parce que euh, dama koy rappeler Sénégal dafa nekk ci benn nouveau mécanisme de financement mondiale ñu koy wax GFF te GFF boobu dafa am benn approche bu ñuy développer mooy naka la ñuy fexee mobiliser ay ressources endogènes mooy yi ñuy mobiliser suñu dëkk di ko booleek partenaires yi li ñuy indi hmm. parce que gis nañ ne voilà bañ a tout le temps di tàllal loxo parce que gis nañ ne de plus en plus partenaires yi dañuy commencé wu di retirer wu. Hmm. parce que dañ naan nous avons investi beaucoup d' mais en fin de compte du ñu gis les résultat hmm. léegi il faut que nag ñun li ñuy indi yéen tamit ngeen développer ay stratégies yi nga xam ne di ngeen mën a andi mobiliser xaalis au niveau domestique. pour ñu mën a boole. mën a mën a mën a mën a xeex jàngoro yi nga xamante ne nii ñun ñëpp la soxal. Mm. et je pense que nous sommes euh, vraiment ñu ngi ci yoon bi yaakaar nañu ne vraiment euh, collectivités yi comprendre nañ ko et que ñoom tamit dinañ apporter seen contribution par rapport à ça. Mmh. dernier point bi nga xam ne bëgg naa ñu aborder ko moom mooy wàllu. avortement médicalisé. Mhm. parce que nekk na sujet boo xam ne juriste yi nga xam ne ñooy waa AGS. Mhm. donc porté nañ ko donc pour vraiment ñu mën ko fi def au Sénégal. Mhm. mais gis nañu ne ba léegi daal am na ay blocage ak réticence yoo xam ne am na ci. parce que planification bi rek sëgam moo gën a xaw a yomb tuuti te ba léegi nit ñi ñu ngi mu ngi am ay poches de résistance mais bële moom. Euh, les gens ne veulent même pas en entendre parler mm. Ndeye Saly Diop Dieng bi nekk ministre de la femme wax na démb ci plateau que ne le Sénégal n'est pas encore prêt mm-hmm. ci ci loolu tey euh, wala avortement médicalisé boobu est-ce que peut-être boole ngeen ko ci action yi ngeen di mëne xam nga ñun nag dañu nekk ci lépp loo xamante ne ni dafay améliorer la santé et le bien-être des populations de de manière générale mm. tey jii boo euh, ci wàllum avortement médicalisé bi ngay wax nii c'est vrai ñun en tant que acteur de la société civile ñu ngi ci combat bi parce que comme ni ma ko waxee sànq ñun dañuy waxtaan ak état mais di ko rappeler aussi engagement yi nga xamante ni daf ko jël sur le plan régional moom mooy li ñuy wax le protocole de Maputo boo demee ci protocole de Maputo boobu dans dans son article 14 daf ne état yi nga xamante ni dañu signe et ratifier ko dañu am obligation autoriser l'avortement en cas de viol d'inceste et si la santé de la mère est en danger. Mm-hmm. moom mooy tey nit ki nga xamante ne nii dañ ko violé wala nit ki nga xamante ne nii dañu jàpp ne eh, ëmb bi ñu ëmb mën na mën na mën na mën na mën na ci jëree faatu mm-hmm. ñu ne kat yooyu état daf ko war a garantir mu permettre ko mu mu recourir li ñuy wax avortement mais tey li nga xamante ne nii moom la. moom la loi di Sénégal mm. euh, nangu autorisé mooy l'avortement thérapeutique bi nga xamante ne nii dañu ne bu dee ki nga xam ne dafa ëmb ëmb bi dafa mettre en danger sa vie mm. médecin traitant bi bu ko attesté mën na ko autoriser pour mu pour mu cas boobu kese mm. la code de déontologie médicale nangu pour kat ñu ne kat kii nii war nañ ko mën a mën a mën a bàyyi mu mu dindi ëmb bi mais bu koy def aussi daf koy def ci lieu ba nga xamante ne nii dafay respecter norme yëpp. Mm. moom mooy que euh, labortement soit médicalisé respecter critères yi ñuy wax yëpp mooy médecin bi il faut mu attester que effectivement que ne ëmb bi kat ma buñ ko bàyyee mu dem à terme mën na ndaw si mën na ci ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk bakkanam te loolu médecin rek. moom moo ko mën a autoriser pour ñu def ko. mais bu dul cas boobu le code pénal est clair le Sénégal n'autorise pas. mais man li ma ci jaaxal mooy même bu fekkente ne autorisé wuñu ko mais ñi ñu ngi koy def quand même de manière clandestine te dafay jur sax yoo xam ne mooy gën a garaaw te aussi bu weesoo loolu am na beneen cas tey dérive yi mu mën a andi bi nga xamante ne peut-être encadré wuñu ko parce que euh, nit mun na jóge fee ne dañ ma violé wala inceste fekk ne du ci lenn avortement donc loolu tam day nekk lu xaw a doy waar. waaw xam nga sujet la boo xamante ni dafa xaw a complexe. Mhm. il faut nga maîtriser beaucoup de paramètres. Mhm. surtout sur ces questions la parce que tey euh, comme ni nga koy waxee dañu nekk ci benn société ba nga xamante ne ni vraiment dafa bëri ay contradiction mhm. tey c'est vrai tere nañ ko mais c'est une réalité ba nga xamante ne nii. Euh, jarul sax ngay intérosé des indicateurs pour xam ko mais sa entourage bi la gën a jege sa environnement bu la gën a jege. Mhm. chaque jour nga gis nit ëmb nga jég saa dootoo gis. ëmb ko mhm. voilà mu nekk yu nga xam ne chaque jour danga koy gis di ko dégg si télé di ko dégg si rajo mhm. mais comme état bi nga xamante ne nii moom moo war a légiférer moom lim ci waxagum moom mooy cas bi nga xamante ne nii exception la. loolu la d'accord loolu la nangu mais yeneen cas yi ñuy wax fii nii état état d'accord lu ko donc nag ñuy rafetlu aussi loi bi nga xamante ni récemment le président jël na ko moom mooy pour criminaliser viol ak ak ak pédophilie et je pense que c'est un bond assez significatif parce que loolu aussi mën na nekk surtout benn réponse par rapport par rapport ak ak ak ak yi nga xamante ne ni moom mooy phénomène yi ñuy wax et ñun ñu yaakaar ne nit ñi bu ñu amee accès aux produits contraceptifs xëy na fii yëpp duñ fa àgg. parce que fu ñuy wax avortement il faut que ëmb am. mais naka la ñu mën a war a mën a def ba garantir nit ñi ñu am la bon information. am accès aux services. de santé. je pense que loolu mooy le plus grand défi ba nga xam ne bu ñu ko relever rek yenn question yi ñuy wax ak problématique yi yëpp dootuñ ko dégg Sénégal. Euh, euh, voilà pour terminer lan mooy ay perspectives alliance donc des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale lan ngeen di vous vous allez vers quoi maanaam lan ngeen di yootu fu mu toll nii loo xam ne à court terme wala à moyen terme bëgg ngeen ko pour par ak seeni activité waaw ñun nag ñu ngi toujours ci ci perspective. mobiliser des financements domestiques parce que comme ni ma koy waxee aussi état volonté rek lay am l'état dégage sa vision mm. élabore ses politiques mais ñun société civile dañu am rôle pour accompagner mu mobiliser xaalis bi nga xamante ni dina ko mën a permettre ku feebar ñu faj la ku am lu la metti boo demee ci hôpitaux yi ñu mën la faj à moindre coût te te li ngay fay du bari et je pense que ñun ñu ngi ci dynamique boobu di travailler ak collectivités territoriales yi di def plaidoyer bi pour ñoom li nga xamante ne nii dañ koy am ci xaalis di ko jagleel wàllum santé ñu ba gën ko mën a yokk parce que boo réglé wàllum santé rek pour ñun réglé nga lépp. Mm-hmm. donc loolu moo nekkoon dernier kàddu bi. Mm-hmm. di di la remercier ci invitation bi. di remercier aussi ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñu doon déglu. Mhm. voilà ñu lay remercier encore une fois donc euh, daam émission bi jeex na euh, tey nag euh, may fàttali ñu ngi doon dalal Dame Ndiaye nekk njiital alliance pour alliance des jeunes donc pour la santé de la reproduction et la planification familiale ñoom ñu ngi yëngu ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wérgu gu yaram de manière générale du yem rek ci PF ak yooyu. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di ko encourager encore une fois ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy abaat moom ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di leen remercier yéen mbokki auditeurs yi ñu doon déglu di leen dig daje ajuma incha allah beneen thème ak beneen invité ci Rewmi FM 97.5 ci seen émission SOS santé. jarama joojuwaay